waa asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan man la aram Zale maa dellu si waat di leen nuyu rek di leen ziar waaye di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi xamante ni yéen a safoo Pikine Info TV di ko suivre di topp ay yëfam xanaa dama leen kontaane rek di leen wax ni tey dañ leen indil gan gan gu mag macha allah tubarkalla ñu koy wax bu boutique xanaa balaa ñoo dugg ci waxtaan wi ñu dugg nuyu gérant bi ñu koy wax gil Oro mu nuyu mbokk internet yi ak ñoom Jules noo def. waaw ñu ngi sant bah bu baax a baax a baax. xanaa nga nuyu mbokku internet yi lay seetaan rek. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di leen wax ne dal leen jàmm ak euh, fii ci Faramareen bitik magasin Pikine di leen dalal dal bu baax a baax. waaw mu mel ni que ni Jules Oro mooy gérant bitik Faramareen fii ci Pikine. wa loolu la yàlla dogal Faramareen bitik bu nekk Pikine maa ko géré wa loolu lay suñu borom dogal. waaw ma dégg ñu ne am ngeen beneen bitik boo xamante ni tamit nekk na Dakar. waaw am na beneen bu nekk Dakar boo xam ne nii boo demee day jaay en lépp loo bëgg rek boo demee dañuy jaay en gros buubel moo fa nekk moom boo demee mu ngi fa. waaw buubel maa ngi lay nuyu sama sama sama ji sama càmmiñ yow tamit maa ngi bu baax di la ziar di la nuyu waa bitik ba ñoom tamit ñoom ñëpp waaye xanaa ñu dugg ci waxtaan wi rek di laajte ndax lan Faramareen boutique. dañoo nekk euh, di góorgóorlu di góorgóorlu waaye nag idée bii mu ngi jóge ci xalaatu bi doon Koungheul moo doon ñu ne magasin bi war nañ cee am magasin. ñu am magasin mu ne fromage bi laa ko tuddee ñu dem seeti wàllu ko dañoo am benn centre commercial boo xam ne mu ngi ci yore ci dëkk bi waaye sekk lañ ko boppam moo jël ko tuddee Wally ko Palmarin bi Palmarin seen relation ak Wally Seck lan la ndax li nekk ci waykat bari na pourquoi Palmarin bi ngeen taamu ko ci. waaw dañoo gis euh, ñu liggéey liggéey bu nekk nit koo xam ne moom tax way na ko benn góor dafa war a yàq benn dafa yàq loolu mooy indi relation boobu ñu yéene ñëpp nag jàmm. Mhm. waaw mu mel ni bee tamit Faramareen boutique la tudd. boo demee centenaire tamit am na Faramareen boutique boo xam ne góor mais seen relation ak Wally Seck lan la. waaw tey li mu gën a marqué ci moom bu ñu demee maanaam dafa jël dooleem. ak xalaatam <laughs> looloo tax ngeen taamu ko ci. ndax maanaam dafa mel ni moom lu mu laal yàlla teg ci loxoom comme nam ko woye woon tubaarkàlla faramaari ndi ka jorog bawal nee naa la macha allah nan la bàyyi xel te mat ngaa ba ci mim réew nag tubaarkàlla xale yee ko bëgg jeunesse bee ko jox bopp muy le centre du peuple ñi naan le roi de la ah, xaw ma nan africaine ndax maanaam tubarkàlla valeur bi ko yàlla may ak daraja bi ëpp na dayoom loo jàngatee Wally Seck ci boppam. mooy la. li may wax yéen xam ngeen ko. dëgg la waaw ñu gis ne bi ngeen di inauguré fii moom ñëw na fi toj Pikine. moom moo déplacé ñëw toj fii xam nga tey nga ñëw fii léegi benn affaire mën na la mën na la waaw toog suñu toog mais dafa jaral mu taal otom def ci essence am def déplacement def ci dooleel ànd ak ay nitam ñëw ba fii dooleel mi ñëpp xam ne Wally Seck moo fi jiite fii soog a jël waaw. waaw mi ngi noonu sama sang bi faramaare ni Kajoor ak Bawal wayaa naa le daan naa le nee naa la yow sa baay ba la ñu jot a noppeegu ñu waaye ki ne Juuf jaaga mooy sa yaay

coow li am ci digganteem ak moom ak sénégalais yi muy coow lu rëy coow lu metti loolu métti na lool ko dégg loolu ni mu méttee ñi nga xam dañ moom la ñu méttee mhm. koy wax rek na xool na xool ci kanam moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la war a dëgg la sax tey ñu ko yaakaar aussi da ko jóg lenn rek am na mu koy pensé mu koy pensé moom xamul lu baax loolu wante amul garab te nit ki nekkul nit ki def déedéet wax jooju ëmb na lépp ëmb na lépp amul droit def nekk na nit koo xamante ne def jooju ëmb na lépp dëgg la macha allah waaye dafa mel ne sénégalais yi dañuy bañ ko dem boo nekkee numéro un ñi dañuy jàpp say tànk ñi jàpp say loxo ñi jëla buddi pour nga daanu ci suuf dëgg la mooy ku ñu yërëm rek sama sang bi yàlla bu ko kenn yërëm faramaare ni Kajoor ak Bawal ma Mariasin may sa bige may sa bige maar nee naa la yow ñàkk laa am ci miim réew wóorul macha allah tubarkalla xale ya la bëgg waaye xale ya la woteel ma lay wax ne rek nga wax ma faramaare butik nag lan lay doxe ak askan wi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg faramaare butik. waaw

day noppale loolu yàlla suñu borom dogal ñu waaw parce que bi ñu ñëwee tubarkalla ñu ngi fekk mbedd mi fees dell ci biir tamit aussi dañoo mujjee xaar sax ba nit ñi wàññeeku pour ñooñu doog ko def émission bi. teg loxo kan waaw ya, dëgg la dëgg la dëgg la waaw xanaa ñu leen di wax rek moom kenn dootu ko présenté kenn ndax tubarkaal dégg nga sama sang baa ngi noonu di way Faramareen Kajoor ak Bawal yow man su ma lay dégg sama xol bi day mel ni doomu papa yi Messi Dia macha allah bëgg la fii laa la def barke yonent bi ndam rek incha allah ca kaw ca kanam ci lu baax ci kàttanu yàlla barki yonent bi déggal loolu Ziloro loo wax ci loolu waaw fii beneen musique du fi daw bu dul Wally Seck <laughs> waa xanaa ñu xool bagaas yi acca bagaas yi moom bëgg nañ koo xool léegi nag nga wax ñu saag yeeg yooyu nu muy demee ndax gaa yi nag mën a gën a mën a ñëw sax ndax ñu ngi ñëw moom waaw

ah dal yi amna classe ci yi mom man dama joy ah tal ay talon ñambi waaw dalu xale dalu mak. ak fi réew mi tolu ni ngeen oy fa lépp waaw kooku mooy Faramaren boutique ah papa xana nan waa nan dem publicité te ñëwaat I'm on my way, just wait Wait for me, wait for me, wait for me I'm on my way, just wait I'm gonna shut them all up. I got my fire like Peter Van You and you got it, a TV I got a TV for 50 Oh, oh, oh, fire, my leen bagage rek di leen wax ni rek tabaski bi ñëw na na ngeen ñëw da ngeen ngeen solo sendom, doom ah macha allah bagage yaa ngi ni yomb na rafet na mucc na ayib saagi saagu classe la dàll yi dàllu classe la yëpp daal la ngi nii xanaa ñu dox tuuti rek daal leen koy wan Jules Euro daan may acca ñu dem waaw boutique wóorul affaire bi fi la kon moy le numéro 1 ah deug neexul même fii bu ci Massa Zeng ki moy le numéro 1 maa la ko wax ndax Massa Zeng gep ñi ngi joy jooy ah, parce que nenañ yeen da ngay yak marché bi loolu lañuy wax wa parce que dañu bëggoon ngeen séral yëf yi ngeen yombal ko nit ñi dëgg la wa kon nan dox rek nga wan ñu yëf yi jéggal lool ca talon bu carré bala neex a doxe tubarkalla maa la wax lii ak petit nawam def ay strass am ñaata la noonu lay lay la laa daal yi danga ko daan am ay 17000 16000 Faramareen boutique du ay fo du ay fo buubal maa ngi lay nuyu sama waa ji du ma taay di ko wax maa ngi lay nuyu kenn moom ah déggal loolu waa Jules Euro loolu la wax kooku mooy Euro doomu ndey buubal waaw loolu la yàlla def jëlal li neex a doxe ba dee. sama genre gi. waaw. macha allah. mu ngi mel-meli de man ngeen ñëw fii daal dara sinois amu fi. original original original moo fi am macha allah jëlal ma dàll yi gis nga ko nii ay cerax yu baax kii moom day neexal ak yàpp kii la ci tabaski bi dangay def sa petit robe mbaa marinière def cerax yi daal ci ri tambalelu toog waa waaw lii lan la yëkkatil ma daal bi ca couleur arc-en-ciel ba la cam Sénégal li lay bañ <laughs> dañoo neex <laughs> aca gaaw sama kamara malu ñaawul yaangi non, ñom tamit sama domi, ah papa njaay lil Pro ak Pape biran beng Mbor aca na ca dal gaaw. am na ñoo xam dañuy bëgg ay xew. waaw fasatu xew yaa xew la. ca poset bala. mom ñu mi wéccé ko mom mi. nga ko mu tuut neex loolu tubarkàlla légal li. na solo wuri sama poset lépp ci Faramareen boutique lay xewe ah ak ak Jules Euro dëgg neexul fii ci Pikine tali bu mag doom day bubal waaw loolu dafa leer <laughs> bubal sa doom day a ngi nii sa waaye sa xarit waaw loolu <laughs> ah avec Faramareen boutique tout est possible dëgg neexul gaa yi fàtte gaaw ngeen ñëw jërëjëf Mar fu ñu jëmaat kon dañuy daal di yéeg kaw rek xanaa ngeen ma ñu guddi ñu daal foofa toj sama liggéey ma ñëw li ñu leen nag li li ngi fi nekk te wonewul ko moo ëpp nee naa leen na ngeen daw na ngeen daw daw leen gaaw te ñëw fii la sorewul Pikine tali bu mag ci euh, centre commercial El Hadj Modou xanaa war ngeen ko xam ngeen daal di ñëw fii jàkkaarloo ko Jules Oro tubaarkàlla sama waji, waaw gis ngeen ko noonu bu ngeen ñëwee mu defal leen ay bagage yu baax waaw gis nga ah te du ngeen sonn du ngeen ci fere xaas bu bari kenn dafa dugg jénn sa xol di tàng waaw dégg nga amul xol bu sedd rek nga fiy jëlee man daal bitig nay neex laa ko tudde fii faramaaren bitig ndax faramaaren dara met lu metti amu ko sama liggéey ma ñëw dañ koy liggéey yàlla def may sufi tanu ma leen sama yoon lay tëdd fara ma leen di lay ne ma du ma ci leen ko def